gouvernement du Sénégal ci ndajem conseil des ministres dafa bëgg récupérer waat li nga xam patrimoine foncier ak bâti yi nga xam ne dañ koo jox ay privé ci conditions irrégulières loolu dafa am solo média bi yépp wax ci mais moi war a doon de faire am continuité. am continuité mu war a doon de faire de faire de faire de faire gaaw te dëgër nous doublons si le plus rapidement possible pour gravité bien la grave Sénégal tu souffres Sénégal bien nga au ni bu ndaw la hectares 650 000 hectares juróom ben téeméeri junni ak hectares étrangers nous avons exploité. nous 650 000 hectares, pratiquement 17 personnes nous avons 17 personnes, entreprises, sociétés, mais 17 groupes. Pratiquement, nous nous avons étrangers. Nous avons 16,45% qui si nous avons le Sénégal 16,45% population du Sénégal yep 18 millions 16,45% tu souffres Sénégal biñu mëna bay Sénégal mom 17 personnes ñoko seddo jamono ji nga xamni Sénégal chaque année mu génné 427 milliards je dis bien 427 milliards les génné ci walu importation

le fait Ousmane Sonko premier ministre procédé ci nanguwaat li nga xam ni patrimoine foncier et bâti yi nga xam ni état bi da koo ay privé bu ngeen gëstoo ba xam li ci nek di ngeen xamni ay avantage kese di ngeen xamni ay njëriñ kese parce que Sénégal alal ju toll noonu munu ko bayyi ci àll bi mënu koo ci àll bi kon fokk ñu jëm ko jubbanti le plus rapidement possible

sans compter 427 milliards yi génn ci xaliss pour jënd liñu lek mais li ñuy ci xaliss buñ ko bayé ci ci surface bi mënuñu ko jéxal bàyyi té lépp ci loxo ay étranger la nek li ci ëpp ñi di bay tomate ñi di bay pomme de terre ñi di def élevage té lépp luñu ñu récolté dañu koy fret mu dem ci seen dëkk yu ñu ko mëna a fi marché bi baaxee

lu meuna a Sénégal ci ben jafé jafé bi muy c'est très important pour ñu bàyyi xel ci ni amna yo xamni mënu tu continuer fokk ñu changer ko alors ñu ngi ci démarche bobu nga xamni ne na lool xeyna kon fii ak ay at yu néew Sénégal dana am souveraineté ci walu alimentaire ba nga xamni li dootul am solo xaalis bobu yépp kon fay des fi ci Sénégal ñun ñëpp joxante loxo ngir mëna saxal politique bobu nga xamni da fay dolel vision bi ki jiite réew mi am ci ñu nanguwaat suñu souf jox ko ñi bay ñu bay ko au lieu ñu bàyyi ko ci loxoy étranger yi ñu ci def lu leen neex té ñun toujours ñuy gëna ndol ja ngeen jëf ci and beeg ñun abonné leen MMD Media jot suñu ay vidéo